maa ngi delloo ziar bu wér waaye kilifa yi. ñu nga fa ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax. dangaa ñëw jàkkaarloo ak sa adversaire xoyantaan le roi des arènes ngeen di woon Gambie combat bu amul. waaw moo war a ñëw moom fii xam nga di sant yàlla bu baax a baax rek ba yàlla dogalee ñu war a fii muy loo xam sama xol ci sedd guy ndax ni mu demoon ba lay paase neexul kenn neexuma neexul sumay supporter neexul sénégalais neexul gambien yi ndax yemalewul yaa ngi dégg mais nag ñun Sénégal nday di seexlan ku ñëw doon lay uuf te làmb moom li yàqa làmb Gambie wala yàq ko Sénégal waaw. maanaam woon Gambie du ko demaat Sénégal. dégg la ma la wax affaire yi ñàkk fay ma damay rus sax ñu ne làmb ji ay wee moo ko yàq ay wee lan mooy wee dinaa préparer sama combat ay weeri weer préparer ko entraînement bi bëgg a dee yaa dégg fere ci lu nekk boo war a bëri ay wee man daana toog kër ga. yaa ngi dégg sama wéy génn ma dagg te sans combat sans dara tey su ma amoon ay wéy barko Rasuul may taxaw ci biir géew bi def ko nii kër ne at bi siflé mais aw ko booy dagg da ngay daggaloo am yaa ngi dégg tey su ma amoon wéy dama koy joxe gi dagg ko mais ñàkk fayda yàq fay loolu ma a métti sama àdduna wallaahi moo tax sama xol dafa seddu guy kontaan tamit daf dafay la wax ba mu ñëw fi fii de bu dee làmb fee yàqu ko fii de fii. ay weew ak bopp ak tànkaa ci yam boo xësee ba dugg si géew bi xanaa dogal yàlla ñëw fa yaa ngi dégg de waa CNG taxaw arrêté mais tey ma pour ma moom rek incha allah biir géew ah yaakaar naa arbitre bi na jógee sama diggante ak moom de bu soobee yàlla. lan nga def gàmm bi ban ban aj la. aj kon lan man su ma jëlee bi man lu mu may wàññi. laa aj dafa mënut a fa bëree. Sénégal laa bëree ba xam ma suñ ma ajee gàmm bi man ban ban lu may wàññi. ak lan la ma yàqal foofu lan la ma yàqal man dama demoon foofu pour ñoom bëri xoyantaan pour làmb dekk Gambie pour ñu jël ay mbëri Sénégal di dem Gambie fee man li ma gën a métti rek seen fédération laay waxal làmb sénégalais bu fa dem di bëre dal na ndongoloo ndongoloo dem na fa di bëree yaa ngi dégg de daan seen mbër ba pare ñu acca jël xaalisam naka dootoo dootoo bëreeti Gambie def nañ ko wulli acca naka dootoo fi bëreeti. yaa ngi dégg de Double Tyson demoo Njaay di sénégalais demaat Gambie war a lu yàqaat làmb ja yaa ngi dégg de ak ci quatre ans jël xaalisam loolu dafa ñaaw ci diggante Sénégal ak Gambie. mais mbër yooyu mbëri bu ñu ñëwee Gambie foofu ñu war leen a teeru tëral di leen toroxal. mais est-ce que mbër yooyu nekkul danoo jël bu ñëw Gambie te toroxaluñ ko loolu dafa ñaaw. est-ce que nekkul mbër yooyu tamit jalgati luwa. dara ñoom li ñu mënta gérer nga ñëw Sénégal daan daan daan yóbbu ndam Sénégal loolu lañ bëggul a gis mais xoy xoy xoyantaan xoyantaan combat mi bëre yëpp yaa ngi dégg bëri naa France ak Leket est-ce que Leket daan ko def. mu leen daan France mu daanu leen toog seen kaw de par par par abat euh, lii la. décision arbitre waaw décision ci la nekk roi des arènes. maintenant Gambie la fa daan te Gambie Gambie dëggantaan ñëwuloon Gambie bëre ak moom. daan na ah, waaw fa Gambie fee. waaw mag la eh, yàlla na ko yàlla jàppale moom Yaya Jammeh mais xaw ma ko de waaw ñun ñëpp moo leen xam xaw ma action xaw ma Yaya Jammeh moom moo leen xam foofu xam fii nii man muy bëri xoyantaan bi ko tax man xaw ma ko woon sax man xaw ma woon ku laa la wax mais daana dégg turam nag mais jëmm ji laa xamuloon quoi nekkoon na fii écurie Fass déggoo la wax écurie na fa ah mais moo na faa toog nag làmb fii la fee xaalis si Gambie de kase yi mën a am fii mën ko am fee de mënu ko am mënta ne. léegi kay ñëw na Sénégal ci yow la njëkkee. déggoo li ma la wax. yaa ay Modou Lo ay Balla mu ngi koy laaj. mu nee na bu sañoon roi des arènes lay bëral ndax moom roi la a bëril. Modou Lo bëriwul ak moom. bërë bëriwul moom tey bëriwul ak moom ëllëg. na bàyyi ba gën si baax ma yoon ba pare doo xool leneen mais instant bii nii instant ba mooy may nii mbër nan na wax si man ba pare balaa ma wax si ay keneen ak ah, war a génn su ma la dégg. la wax. na bàyyi ba instant bii ni koy wax de sax Euh, dafa am client bu mu lekkale fenn. sàmm loolu ba génn ci client bi doog a liggéey ay Modou Lo ay Balla Gaye ay Eumeu Sène ak ñeneen ñeneen ñeneen mais fi mu toll nii war a bëre man ñu jàpp date bu war a bëre bi yaa ngi dëgg de encore may wax la may wax demee kere dem seen régulariser combat bi man ma xam ko ñu lay bëri. su ma bëree wuroon combat maa maa bii nii ñu bëgg bàyyi ba déwén day gën a métti ñun préparation dafa métti. Oh, jàppoon ko la 14 rek ngir yàlla dem seen régulariser combat bi ñu jàpp date bi amul date ba léegi nii. non jàppoon ko lakadoosu ban amul. lakadoosu ut jàpp mbër doucement combat CNG la ñuy régulariser fa la ñuy da génne daal di mais yow lakadoosu ut yoo xam ne day dama régulariser pourquoi. problème kayit la rek problème na la ngeen di kayit nag ñu régulariser ko loolu laa gëm quoi. mais loolu nag mu sa diggante xoyantaan. waaw sant yàlla di ko ñaanal yow rek di ñaanal suñu bopp wér. Euh, ba jour ba incha allah rabi gars yi xool teg seen bët incha allah rabi. xeex bëre noo bëggee combat. moom combat yi bëre Gambie yëpp. bul bul ko wóor maanaam xam nga la son problème moom. moom xoyantaan nag estafam libéré bàyyi ko muy bëre. mais saa wóoree bëri rek dañ kaa bëgg defal goo xamante ne ñoom bëgguñu mu perte dara dañuy bëgg a yàq làmb yi sax pour arrêté bi les a génn fenn nan bàyyi moo ci am. mais nan koy nan nan am fi di bàyyi xoyantaan muy ba def lu grand combat combat ndaw yi dem grand combat yi yàqu ko. yaa ngi dégg def ko double taille def na ma ko def def na double taille barki démb mondial loolu dafa ñaaw dañ koy bàyyi muy bëre bu fekkee da nga am bëri nag wóolu ko na tëj nga seet leneen. moom sa lépp erreur la mënoo dara lépp moom mooy def. comme. nee sa lépp erreur la yow erreur rek. erreur la ay yow <laughs> mbër mbër yàlla na si yàlla boo jàmm asalaam ya kii man maa tooñ sa bopp sax man muy bëri ay xoyantaan xaw ma xam ne kenn la xamul leen man maa tooñ sa bopp man mii yaa ngi dégg. te dama si jublu woon rek mooy taxal Sénégal Gambie Gambie am euh, maanaam làmba développé foofu mais xoyantaan kan moo ko xamoon fii Sénégal kenn laa xam fii xoyantaan kenn man bëri bi bëri moo noonu bëri moom Gambie moo tax ñu bari naan di ko bàyyi xel ndax yàlla mooy bind doomu aadama tey boo nekkee ku siw ku la jege sax yàlla mën na kaa may tur koo bëril koo mbaa nga bëgg tur yàlla mën na laa may tur yaa ngi dégg mais xoyantaan Sénégal fii ñu bari xam dama loolu xoyantaan ñu am ku ko mais dama am combat war a jare bu Gambie laay bëreel ku du xoyantaan ñu naan man ku xoyantaan ak Gambie kenn ak roi jare loolu muy wax mais man maa dina fa di defaraat naa ne non champion la de waaw roi moom moo daan bëri Gambie ne roi rafetal quoi dara wóoruma waaw xam nga rek. <laughs> kon daal dara wóorul ci ak champion. wóoruma ci dama woon naay sar rek. waaw yee man en tout cas ma seetlu naa ko maama kan. fa daal YouTube bi laa doon xool jékki-jékki rek gis nga mu bokk France la xaw ma lekket muy puusante ak moom ba arbitre bi yëkkati loxoom mais gisuma fenn fu mu daane quoi ak mais daan na Gambie nag Gambie benn gis naa mu daan ko. bu ko weesoo moom moom xam naa gars yi këlu këlu roi bi rek jox ko. waaw mais loolu ah, boo boo doon dem bi nekk froid dara loolu lay dara. Eh. moom dina na mu sa diggante yow mooy daan la la bëgg. mbër xoyantaan du daan tus dara du ko am kii bokkul sama bilan barke Rasulullah dama koy këlamti koo xool la leen ba li may liggéey jamono ji xoolantaan taxul may sonn tuuti la ci xam non bàyyi la fi blouson bi lii taay taay bee daw du ci man ki ñëw taay bi moo tuuti mais du ci man yaa ngi dégg mais nan si yàlla bi boo salaam gay yàlla bu baax na ko ndaas na ma lay bëggee wér nag waaw di wax sénégalais yëpp seen doom moo xewle bis yaa ngi dégg dayer wala seret bu Gàmbi may wax na sénégalais yëpp génn nag wax dëgg yàlla xam nga ñu teeru gan gi Roi des arènes Bouga mu teeru ko stade bi fees del yaa ngi dégg ñu nekk benn ñu nag moom nekk benn samay supporter supporter bi nekk benn ba des nag biir géew yàlla may ma ndam mu jox leen ndam bi sénégalais yëpp incha allah. nee na buy ñëw dina indaale ku angul lamset lépp. Oh, loolu la moom mi fi def la di moom kenn da man man kay maa war wax loolu. man mi noonu man man maa rawatul may nuwaale paaka pour ñu dagg samay baaraam ginnaaw bu ay weela moom lay amay baaraam balaa ñu taxaw amay weew ñu may laaj ay baaraam mbër xam ma lay bi laa bëgg du làmbi ba ñuy dimbali ñu laaj ay weeg ay karaw ak ay yu ma xamul dan bàyyi yooyu yaa ngi dégg dan bàyyi ko le motif bi lan la waaw yow damaa waar ba ne ñu yàlla ma dimbal sa barki yàlla ba amoon ay wee may dem gaa mais su ma amoon ay wee fa laay nekk jox leen ñu daggaa dagg ba doyal après ñu ñu def sax lu leen neex waaye ah, man yàlla laa gëm liggéentiwuma leen yéen ñeme gi la xoyantaan ñeme loolu est-ce que tiitoo ci. bër si yéen si nii ko média bi ak ñu interview yooyu mais maa moom si biir géew bi sël-sël wallaahi su ma ko waxee dara du ma tontu. billaahi wallaahi tallaahi. bi pa bii paase demee na fa noonu bii paase. barke Rasulullah bi ñu présenté drapeau ba des lu sëgg ma ak moom. yaa ngi dégg de ah. ba bi du commencé di ma raay avant ñu fa wax affaire yooyu dafa ñëw ba ci man na ma baabu gi muyu ko mu jaar fu ñaaw saaga ma ma ne ko man ngay saaga jaru ko ma ne ko yow ba ko waxee loolu dafa taw xuli bëdi laa la man ni kuy lox mën a xoola ki ragal xaraam na jaay bi non. kon day ñeme ñeme lu nii barku rasulillahi ki ñemew ma mbër am na change contrat bu def gàmm ak moom bi affaire bi waay jeex bi la ma ma alu fa ale wax ba affaire bi waay jeex xam mu ñëw romb ba naa ma wax léegi xoolal comme gis nga léegi ñoo ñu waxtaan ma ne ko waxtaan naa nga waay jàllal fële nga waay ma ne nga ba foofu moom mën na loo waxtaan ànd dem gàmm bi sangu piscine def si lu neex mais pour le moment nii ma ne waxtaan amu fi de. wallaahi. bëri coo bari bëri rek. dañu yàlla may fekkee te damaa ne ma jeex xar-xar rek. waaw waaye sëñ Tuubaa nee gëmal ba nekk jafe-jafe nee na gëmal jël yàlla teg sa kanam li sa kanam yëpp xéewal lay doon te man gëm naa ni baat boobu sëñ Tuubaa waxoon loolu laay xëy di yeewu di si gontu di ko xalaat te xam naa noo lay dem incha allah rabbi te maa ngi ko ñaan yàlla sama borom li ki desem nekk mbégte incha allah sama sama bépp supporter defet moom sa am sama am lu ko métti yaa ngi ñaan naa yàlla tey li des suma carrière xaw ma kañ laay kañ laay génn àdduna waaye li des sama carrière lépp nekk ay ndam ma ma jox pëkk mbusu musa bàyyi ma ko musa am mu la yàlla def ko mu mbégte si ma nekkee Gambie laa la wax dana dégg laa nekk foofu di vacances barki sëy naa li moom sa bàmmeel ma fenn su kenn ma fekk du ma boo fa nekkee di vacance laa la vacance boobu damaa xalaat ay bërëg ay làmb boobu ba xalaat waaye xalaatuma dala dégg man ma maa laaj ma leen waa fii xanaa doom ay làmb ay yooyu ay làmb ay simba ak xaw ma lan ak lan ñu ne ma non fii am fii am xam-xamun yooyu làmb làmb li xam mu nan wax ay noo am na nu mu ko tuddee xaw ma fele fele xaw ma nu mu expliqué ay làmb lamb tukuloo xam nga lu ma expliqué la moo bi mooy ñoo doon doy gàtt dégg am na benn bër du doxoyantaan dañu ñëw gàmmi fii bëri mais non affaire yi mais xaw ma jëmaam. léegi bi nu yàlla boolee nag. daa ma xam oh, oh, amul de benn bi moo fi ne Abdou amu fa moom moom mii la. ay bon waaye ba rafetal yi waaye. <laughs> mais maa raw gars di bëgg ndeysaan sama doomu ndey yàlla na yàlla aar waay vraiment moom moom waaw yow damay faral ay jaw yàlla ñu boole. yàlla ay man damay koy bëggee billaahi wallaahi tallaahi man du moo waxal ni du nekk si moom du ma fenn. mais yàlla na yàlla soo borom jàppale seen site bi yàlla dem jëm ko ci site bu kawee dem ba mu nekk ay télévision yi bëri yàlla jox leen ay milliards yu bëree bëri waaw ak ak wér xaalis day ànd ak wér nag yàlla bu leen joxee xaalis pare jox leen wér ci barki Seydina Muhammad